gis ngeen sable bi lii jiw la nun noo ko gare ñoon fii léegi bi nu ko garañee pare bi nu ko jëmbatee di ko roose gis ngeen muy commencé fucci noonu muy def nag di commencé fucci ñu koy roose muy mat di mat ba nga xool bant bi moo xaw a mel ni soon ba sëgg nga xam ne yow jiw wi ñor na bu ko defee bu ñu ñëwee dañ koy dindi ba mu seet gis nga ma kii bi waroon naa jige liñ si dindi waa ma bu ko defee suñ ko dindee ñëw dugal ko ci biir teg fi suñu demee nag ba xam ne war na noo ñëw nag defar semence bi nag bés bi nga xamante ni ci la ñuy war a defar semence bi bu ñu ñëwee dañuy lal sunu tuwaal bu mag génn lépp ràcc ka ci naaj wi ba mu tàng nu toog damat bant yi ba mu set jël ka jiwul lu naqaree liggéey la nag engrais lan daan béyee ndax dan tubaab bi moo daan ñëw bu ñuy indi engrais teg ci euh, euh, penc mi kenn du jënd ndax sunu maam yi xamuñu ko woon kook la nu xamoon xolliti yabay loolu lañ daan fumier xamuñu woon produit xamuñu woon lenn lu dul loolu lañ daan fumier gàncax gi diñ daan jëlee ci tool yi soo musaan ñëw nit togg añ boo ko lekkee da nga naa dakaa kim machine ndax gàncax gi amul woon benn poson léegi nu nag dem ba di munu ko jëlee teg ko ci penc yi bu nu ko leblee kenn du ko jël ñu di ka maye ñu di ko maye nit ñi di ko jël ba nu nax nu ci nag ba nu dugal ko ci suuf si nag andil nu produit chimique boo xamante ni poson la day lor ndax koo gis mu yor fukki jàngoro rek xamal ni juróom yëpp produit la produit poson la loolu nag Agropasteur mi ngi ciy dox jéego yu mag ci commune bi bu jandeer bi ak commune Kayar ba ci commune Kër Moussa bi nu lëkkalool ñu ngi ciy dox jéego yoo xamante ni dañoo ciy dox ay jéego di ci def ay formation di dem ci dëkk yi di waxtaan ak ñoom pour képp koo xamante ni yaa ngi bay mbayam poson nga bàyyi ko dem ci mbayam bio. mbéy mu sell te mucc ayib dafa am rendement. parce que bu fekkente ne dafa am produit chimique bu naree dund ñett weer bu amul benn produit mun naa dund lu mat juróom benn weer wala juróom ñaari weer loolu yëpp bokk na ci ñu ciy gañee day yokk suñu gafa day yokk suñu wér-gu-yaram day yokk it wér-gu-yaramu suuf si parce que suuf day wër comme nit parce que suuf si bu yàqoo loo ci bay du dem mais bu fekkente ne suuf si amul benn produit chimique ndax kii rek lañ ciy def ay fumier ginaar yeeg bay yeeg fas yi suuf si ngay gën a dund. may bay fii pomme yéen a ngi jàkkaaroog mandarine yéen a ngi jàkkaaroog citron. muus yéen a ngi jàkkaarloo ak corossol ak mango lépp mu ngi fi waaw macha allah non dama utiliser engrais fumier fumier gis nga jàll fumier yi nekk fee presque ñetti camions yi fumier ngeen ma sotti foofu ndax man bio laay liggéey maa ngi liggéey nag ak Enda Pronat bon presque produit bi moo xamante ni bii ñor na sama tool muy citron mandarine papaye corossol tout day dem par jeudi wala di waa ENDA ñoo koy jël di ko yóbbu loolu moom mënuma ko wax mais ba maa ngi sant yàlla waaw ndax maa ngi ci yor sama njaboot te comme ay télévision ngeen yor yuy wax yuy dem di wax moom bugguma feeñal sama pro sama secret mais daal sama njaboot maa ngi sant yàlla samay doom samay soxna sama lépp maa ngi ciy faj seen i njàngat di ko tawat ma faj la ci di ci gis sama bopp baax di sant